ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بالهدى واليقين إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا أحمد التجاني وعن سائر مقدميه وخلفائه رضا يعم الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi gannaaw bu ñu sante borom bi subhaanahu wa taala mi nga xam ne mooy cant ak jaamu ñaan ko mu wutuñu julil ñu ci yonte yàlla muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñaanal ngërëm mboolem saxaaba yi ak taabiina yi ñaanal ngërëm suñu wasiila ci yàlla muy seyd Cheikh Ahmed Tidiane euh, ñu ngi nekkoon ci téere bu barkel bi ñuy tudde kitaabu rimaaxu xizbi rahim ala nuxuri xizbi rajim li sayidina wa cheikhina alxaaj omar ibn said al fuuti al toorawi al gadawi euh, yow mi suur topp nga téere bi ba ñu ngi ci quarantième chapitre bi tey ci téere boo xam ne cinquante cinq chapitre la nga gis ne quinze chapitre mola dese ci téere bi euh, sëriñ bi di ci défendre tariqa tijaaniya ak sëriñu tariqa bi wane ne lépp mu ngi tegu ci alquran ak sunna te nag quarantième chapitre bi fi dikri fadaili al adkaari gayri lazimati allati yuxtassu biha alxawaasu min ahli tariqati Euh, ginnaaw bi la cheikhu omar jàngalee yonent bi jox ki mu jox cheikhu tiyaani tariqa bi ak ngëneel yi ci na yépp euh, laajoon nga ko lan mooy werd bi mu wax la ne werd bi euh, laazim la wasifa ak asrul jumaa ci mais yooyu yëpp boo tënkee werd yi dafa am rek fu mu dellu ci muy te muy fatiha gannaaw auzu billahi mina shaytaani rajim kooku alquran la ak euh, euh, fatiha moo moo tudd tijji téere bi astaghfirullah azim alladi la ilaha illa huwal gis nga xadis yi mu ci wax ne ñett rek dafay raxas ay bàkkaar tonte toll na ne vague wu géej ñett bi rawatina nga def ci trente wax na la salaatul fatiha ak ngeneen yi ci nekk wax na la laa ilaha illa allah nga xam ne moo ñu fi indi ñun ñëpp pour ñu wax baat boobu lool moo ñu fi indi ba wax na ne ruux bu dafay am ay lëndëm lëndëm yu ne ci biir euh, booy faral di wax laa ilaha illallah mille fois par jour dafay raxas lëndëm lëndëm yooyu sol ci leer ba mu fees dal wax la jawharatul kamal ak ngëneel ci am mais tariqa bi ku ne xam ne ne yeggu yemul foofu werd yi yemul foofu am na yeneen werd yooyu tuddee ahzaabul awraad mag ñi di ko werd loolu la suñu maam Cheikh Haj Malik wax ci faatiha bi ne lahu min al awraadi laazimun wa ma laysa bi laazimin ala ma suwima euh, tariqa bi am na ay werdu farata ak werdu naafila euh, te jàngoon nañ ci xadis ne ku ne xam ne ne naafile mooy yeggale nit ci yàlla waaye farata du yeggale kenn ci yàlla parce que farata dala war boo ko defee lu la ci war ay duma amma nag naafila mooy li nga xam ne yaa ko war lool sa bopp ci la yàllay xame ne kon ndeke moom jaral na la dara moo tax yonent bi ne la zala abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili yàlla loolu la wax jaam bi du dañ di di jéem a jege ci ay naafila xata ahbabtu ba ma bëggal ko sama bopp fa ida ahbabtu bu ma ko bëggee nag kuntuhu dama koy mujj a nekk dama koy mujje nekk loolu si bu yéeme la yàlla bu demee bay nekk jaamam nga xam ne jaam boo doon làmb yàlla jaam bi ngay daj nga xam ni kooku baatin bu foor la euh, léegi Cheikh Omar nag ne gannaaw farata yooyu ak ngëneel yi ak ni mu tegoo ni mu ko argumenté ci alquran sunna Cheikh yemul woon foofu dafa yoroon yeneen werd yoo xam ne yu ci bari yëpp bokk yëpp bokk ci maamam la ko jëlee sallallahu alayhi wa sallam yu mu daan war werd au delà de lazim ak wasifa ak xadara yow mi tiijaan te bëgg yokk say cër ci yàlla bul sos leneen bul wuti leneen feneen waaye jëlal yooyu nga di ci maanaam écouler sa temps bu dee da nga bari temps mu ne yooyu nag am na ay ngëneel yu rëy a rëy a dinaa la ko indil ni ma la justifier le ah, werdu farata ak seen i ngëneel dinaa la justifier le itam yooyu ak seeni i yu dellu ci alquran ak sunna du cheikh moo ko sosal boppam waaye nag yooyu du n'importe qui moo koy zikr faw bëggee da nga dem ci muqaddam ñaan ci ndigal ni nga ñaane woon werd moom itam mooy xam ndax am nga ci habilité wala déet hakaza bu ko defee bu jox la ci ndigal moo tax Cheikh Omar ne du n'importe qui du gëp la gi lañ koy jox du public bi lañ koy jox mais yuxtasu biha lil xawaas dañ koy jagleel euh, benn benn couche spéciale boo xam ne ñoom ñoo koy amee muy muqaddam yeeg xalifa yeeg taalibe yi gën a jege ak ñi seen tarbiya mat ñooñu la ñuy jox secret yooyu ci tariqa bi euh, sëriñ bi nag ne bokk na mu ne i'lam anna anna jami al azkaari hadihi tariqa wa gayruha laa yanaalu laa yunaalu shay'an min asraariha almatluba minha illa man kaana lahu al iznu saxiix xata yantahi fi lfasl althalith wal ishrin min mu ne li ma bëgg a teel sa conscience mooy na nga xam ne nag werdu tariqa cheikh bi doonul werd bu nekk à la portée de tout le monde noono non nee na bépp werd boo ci dégg pour nga amee ngëneel la ak baatin ba ak lumière ba fow dangay nangoo dem ci ko am ndigal mu jox la ci ndigal te kooku itam di la ci jox ndigal du doon rek yaa ma neex wala yow laa xam wala yaa ma yar mais dangay dem ci koo xam ne nii moom am na silsila bu dem ba ci rasulullah sallallahu alayhi wa maanaam muqaddam bi la koy jox moom na am ku ko jox kooku am ku ko jox kooku am ku ko jox silsila bi dem ba ci yonent bi maa ngi bëgg a wax ne képp koo xam ne sa silsila yeggul ci yonent bi am nga rupture yow si fi bopp nga yor man nag maa ngi gis ne léegi waxuma sax silsila bu yegg ba ci rasulullah mais généralement waa ji la koy wax du la wax moom ki ka jox moom maanaam amu ko dem nga rek gis benn way ndere gis fa ay këyit ne bii de dem photocopie nga ñëw toog commencé werd xam nga lu kiimal la boo demee ba ci yàgg commencé koo joxe xam nga loolu yéeme na yow loo xam ne amoo ndigal werd ka ba pare da nga koy joxe photocopieuse yëpp fees ndax ñuy de ñuy multiplier ay ay kayfiya nan bi d'ailleurs maam diw sax neewoon nañ moom la yoroon waaw léegi maam diw bu ko yoree teew teew yoroo ko nag loolu pola moo xam ne mu ngi yaatu ci jamono ji te tabaarakallahu yemuñu ñoom ci di ko zikr amuñ ci ndigal mais xataa dañ koy joxe te loolu fa la danger ba yem Cheikh Omar nekkoon bàyyil loolu xel te loolu tuddool naa la ko ci chapitre 23 pour wan la ne nit pour mu am dara ci njariñ faw mu am ci ndigal loolu jarula justifier lu sori xam nga wax dëgg yàlla ku nekk ci sa poche koo xam ne sa poche ñaari papier ñoo fa ne benn papier boo bindoon benn numéro téléphone xëy na soxlaato sax numéro téléphone ak benn papier boo xam ne nii papier dix mille la dix mille francs boo ko génnee doon bëgg xotti papier bi nga xam ne numéro téléphone ci ne jowaat léegi ak dix mille bi xotti ko dina di nga am loo neex pourtant papier papier la rek ëpp na loolu boo dajalee woon ay dix yu bari teg ko devant tout le monde ne da nga koy taal di ko taal ba pare dem tëddi sa kër. Hmm? mais sa papier yi nga soxlaatul sa néeg boo ko génnee devant tout le monde taal ko dañ naa yow bu ñu di bu ñu bu ñu dimbali bu ñu rey sa poussière bi rek sa sa sa saxaar bi loolu lañ lay wax mais kenn du la ci yenn et pourtant papier papiye la mais lan moo tax bii boo ko xottee mbaa nga taal ko mu jural la coono bële du la coûter dara parce que bii dafa am ndigal papier bi nga amee yóbbu nañ ko banque centrale utal ko chiffre am benn chiffre bu ne benn rek la boo ko jëlee taal di nga am problème ndax euh, siqatoo kook sa bopp rek doon nga ne non maa moom dix bi sama dix mille la nu ma neex def genn wàll gi nga moom mais deniers publics la or que boo jëloon nag faux billet faux billet boo xam ne ni teg nga ko nii mu niroo lool ak billet yi nga xam ne nii yu jaadu la buñ la jàppee di nga am problème te yow defoo dara kenn de yow billet yi rek nga téye faux billet yi nga téye am billet yu baax ak yu baaxul yu leen tegee doo mën lu dul ku ci am xam-xam dëgg waaye buñ la jàppee téye gi nga téye faux billet yooyu rek jàpp nañ ne crime la xam nga lu tax billet yooyu amoo ci amoo ci ndigal yii nga am ndigal rek kenn du la ci téye lu mu bari bari bari dañ naan xaalisam la denc rek waaw loolu doo ko niralee kon wut yàlla booy wut yàlla li ngay jëkk a am mooy am légitimité mooy nga am ko am légitimité mooy ko am ndigal sinon boo wutee faux billet rek gis nga jafe-jafe yim lay jural ci am gi yàlla ñu ci yàlla musal moo tax mu ne wa dalika anna cheikha la yadkuru illa ma rattabahu lahu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala kama fi ljawahir maani la adkuru illa ma rattabahu li rasulullah sallallahu alayhi wa sallam i'lam annaha la tuzkaru illa biltaharati almaiya illa lil uzri kal adkar allazimati wa qala fi ljawahir maani wa sa'altuhu radiyallahu anhu al al hadith Euh, bokk na nag ci charte yi werdu lazim maanaam xayru lazim yooyu nga xam ne werdu naafila la surrogatif la yooyu du farata ci yow boo déggee nag ñu ne du farata ci yow mooy boo ko fayee maanaam boo ko faatee fay warula ci askar yooyu boo ci fàtt fay waru la parce que naafila looy yokkee say point la xataa même boo ko fayee sa mbaax rek la mais waru la woon amma lazim nag boo ko bàyyi woon fii ba ñetti at hakada fay ko daf la war mu ne yooyu euh, mais nag bu mu tax nga sous-estimer ko ne du farata tax nga sous-estimer ko déedéet xanaa xamoo ne Cheikh na Tijaani lépp loo jëlee ci moom Cheikh Omar nee na yonent bee ko jox directement maanaam yonent bi ni mu ko joxee werdu lazim yi farata yi noonu la ko joxee itam yooyu nga xam ne ni ay surrogatif la muy euh, werdu naafila yi kon bu mu tax nga xeeb ko boo na ci sartu werdu yooyu amoo droit jàng ci benn illa bi taharati al lu dul nga am laabu ndox moo tax ñu naan diw dafa mën a yàq ndox comme tijaan parce que ñoom lépp lu ñuy werd mën a charte ci ñoom ñu laabe ko ndox lu dul ngant nag ndax ke ngant gannaaw moo mën a may nit mu mu mu tiim pour julli farata mas kon ay werd d'ailleurs mu indi benn citation ne Cheikh na Ahmad Tiyaani moo wax ci Jawaahirul Maani citation bi je cite mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas naa ko laaj nga xam ne cheikh ku am may la nii la daan toog ak yonent bi di waxtaan ak intimité bu la kenn xamul lu mu doon mu ne mas naa laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko mais werd yi nga ma jox te mu foor lool est-ce que nit mën na ko jàpp maanaam werd te fekk amul njàpp maanaam ndax daal daf ciy farata par force nga war werde werde bi ak njàpp wala mënees naa tiim pour werde werde bi nee na mu ne ko euh, tontu bi mooy lii mu ne ko bépp werde innahu yatayammam wa yadkuru jami' awraadi ka sayfiyu wa xayru mu ne effectivement yonent bi naka ni nga ni nga mën a amee ngant ba jàpp tiim ba tiim julli noonu nga mën a amee ngant effectivement ba tiim nga werd werd yi maanaam nit mën naa tiim laazim nit mën naa tiim wasifa nit mën naa tiim xadaratul juma ni nga mën a tiimee julli xataa wax nañ ne sax boo julee tàkkusaan euh, ci tiim mën nga fa jaare laazim ci même tiim bi wasifa ci même tiim bi xadara fa ci bésu ajjuma bi ci même tiim bi waaye doo am droit julli ci waat timis ndax benn tiim kenn du ci julli ñaari farata li la may loolu itam moo la may yeneen weer yu dul farata yi nga man ko cee def ci tiim bi yeneen bi nekk kës sayfi yu comme xisbu sayfi yu xisbu sayfi yu nit mën naa tiim euh, jàng ko man ngaa tiim itam julli ba pare euh, tegaat ci sa sayfi yu ak xisbul mughni ak euh, yaa latif yi ngay def ak dog yi ngay def ci hayla la dog yi ngay def ci saat fatiha yooyu mën nga ko def ak xisbul bahri xisbul mughni hakaza mën nga ci def asmaul idrisiya yooyu yëpp sëriñ bi dina ko indi ci kanam mais ne excepté illa fatihatil kitab bi niyatil ismi lu dul kayfiya bi gën a mag nag ci tariqa bi muy fatiha bi niyatil ismi al azam nga xam ne daanaka mooy mu ngi am équivalence su jàng ismullahi al azam muy turu yàlla biñ nëbb nga xam ne mooy intimité wu yàlla ah foor na foor goo xam ne tàng na tàngaay woo xam ne tur woowu wala fatiha boobu kenn amul droit jàngate amoo njàpp ndax la haute sainteté ngay tudd te kooku kawe na du dëgg kawe na loolu moo tax kon amoo droit jàng ko ci tiim xam nga lu tax mooy amul plan B moo tax comme amoo loo ko remplacé léegi bàyyi ko bàyyi ko ba ba ngay mën a tiim nga xam ba ngay mën a jàpp pour soog koo kii mu mel ni Cheikh da ko laaj ne ko fatiha boobu ah mais bu yàggee te moom Maroc gi mu dëkkoon dafa sedd foofu ñàkk fa jàpp du fa dara ñàkk fa sangu du fa dara parce que li foofu foo xamee neige moo fay taw te jamono yooyu chauffage yi amu fa woon tiim julli farata du fa dara parce que nit itam du rey boppam euh, moo tax ñu bari dañ daan tiim rek di julli ak a fa mu ne ko waaye Fatiha amoo droit euh, jàng ko te moom Cheikh dafa amoon sedd amoon mujj dundam itam amoon na feebar Euh, bu metti tabaarakallaahu mooy ko waaye Faatiha amoo droit nag euh, tiim di ko jàng walaw taalal xaal donte yàgg na maanaam donte feebar bi yóbbu na la ci weer a ngi nii mënoo jàpp ñaari weer a ngi nii ñetti weer a ngi en tout cas yaa xam mais lu mu yàgg-yàgg amoo droit jàng ko ndax lumière bi moo tax mu ne cheikh alhaj Malik wax ko ci Faatiha ne wastasniyan fatihatal kitaabi bi neetil ismi bila itaabi gis nga citation bii la way mu ne illaa bi taharati al maaiya kaamila qaala summa qaala qad saaltu sayidina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hal azkuru al isma al azam bi tayammumi lil maradi ida asaabani wa lam aqdir ala al wudu fa qaala laa illa an tadkura bil qalbi duna al lisan de même que bii sax moo gën a leer Cheikh Tijaan nee na laaj naa yonte yàlla Muhammad ne que au delà de fatiha bi ne ci ismi est ce que ismullahi al azam bi nga ma jox nga xam mooy turu yàlla bi dëgg-dëgg est ce que jaadu na bu ma feebaree ndax moom dafa maladie foon ci mujj dundam bu ma feebaree ba mënumaa laal ndox parce que dina jaadu ma man ko zikr yonent ci ne ko non amoo droit jàng ko lu dul laabu ndox ndax sainteté bi wala boog wala boog xam naa loolu tax si sa ci cheikh nga zikre ko ci sa xol mais amoo droit génne ko ci biti fekk yow maanaam jàppoo maanaam man nga ko zikre nag sa xol mooy ni nitu yàlla yi di toogee tëj seen làmmiñ nga foog ne dañ noppi fekk na seen xol mu ngi zikr ña fa àgg xam nañ lool waaye amoo droit wax ko si làmmiñ summa qaala cheikhna radiallahu anhu hada xukmu man ixtalama fi safar wa amma man ixtalama fi lxadar wa sixa fala yadkuruha cheyan min adkaari min awraadi illa ida tasala summa baada kalaamin wa qaala wa amma dikru lfatixa fala yaqrabuha bitayamumi la fi safari wala fi fi lxadar walaw taala alxaal mu ne bu ñuy wax nag ne nga jàng ko ci xol xam naa ñu ngi bëgg a wax ni kuy voyager nga xam ne possibilité am ndox itam jafe-jafe la ci moom cauchemar la kooku bu ñàkkee pexe mën na ko jàng ci waaye ki nga xam ne nag ñàkk njàppam leneen la mu ngi biir këram am na ndox mais dafa mënul rek jàpp kooku amul sax jàng ko sax même ci xol moo ko fàtteetul kitaab bi ne ci ismi xam naa lii ñàkk a xam lay concerné lii nag introduction la mais cheikh bi dafa am lu mu bëggoon jàngale te mooy awraadu xayri lazim yi mu ne nag fa ida fahimta boo déggee loolu fal nashra léegi nañ commencé fil maqsuudi ci li ma taxoon a jub bi xawlil malikil maabudi ci euh, euh, euh, pexem yàlla te muy wa ama fadlul yaqutatul xaqaiqi fa fi jawahir maani anna cheikh radiallahu anhu dakara anna man daawama ala qiraatiha tudmanu lahu xayra dunia wal axira wa inna man dakara marratayn fi lsabaxi wa marratayn fi lmasa gufirat lahu adunubuhu alkabair walsaxair baligatan ma balag wala yaqaalu wahun wahmun fi tawxidi lakin bil izni saxiix minhu wa aw mi man adina la euh, Cheikh Omar nag euh, li muy njëkk jàngale tey yow mi nga xam ne tiijaan nga te bëgg nga say point yokku nee na bi mu lay njëkk jàngal tey mooy benn salaatu bu kawee kawe kawe kawe te baax lool bu ñuy tuddee yaquutatul xaqaaiqi bi taarifi bi xaqiqati sayidi alxalaiqi ku ne xam na ne salaatu bii dafa bokk ci ay spécificité wu Cheikh na Tiyaani maanaam moom laata muy ñëw salaatu bi existé wul moom la ko yonent bi roccee direct xayb jox ko ko directement grandeur salaatu bi itam tur bi rek wan na la ko ndax yàlla avant muy bind dara maquette la bindoon muy xaqiqatul muhammadiya maquette boobu moom la salaatu bi di décrire ba Cheikh nee na boo ko jàngee benn yoon mel na ni en miniature jàng nga lépp loo xam ne démembrement la ci xaqiqatul muhammadiya te mooy existence bi kon lépp lu am rek ci yiw bindal nañ la ko Cheikh na Tiyaan nee na képp ku jàng yàqutatul xaqaayiq yi benn benn yoon benn rek nga sax ci maanaam yàlla ci boppam warlul na la teraangay àdduna ak ndax lumière bee tax ku al rek lëndëm lëndëm moo la alak ku texe lumière moo la texel léegi bu fekkee benn yaqutatul xaqaa'iqi nga jàng mu mu mu raxas sa ruux sa ruux ba mu weex tal mais fan ngay amatee problème fan ngay deseetee bàkkaar doo ko deseeti cheikh ne nag ni nga koy jàngee mooy nii da ngay jàng yaqutatul xaqaa'iqi deux fois par matin deux fois par soir cheikh nee na képp kuy def deux yaqutatul xaqaa'iqi matin et soir daanaka tuuti rek la ëppee jawharatul kamal waaye dafa foor a foor ba amoo droit yokk loolu gis nga saatu bu gàtt la tuuti la ëppee jawharatul kamal tolloo nag ñaari jawharatul kamal yu ñu boole mais deux nga koy jàng matin deux soir mu mel ni ñaari garab yu ñu la jox médicament bi ne la bii deux matin deux soir boo ko ëppalee nag loola dal yaa ko teg sa bopp cheikh nee na yonent bi nee na que deux matin deux soir munul munul maanaam bàkkaar munu ko résister ci ruuxu nit ki xufirat lahu zunubu dañ koy jéggal ay bakkaaram yëpp yëpp kabair yi ci mag wa saxair ak yi ci na yi ci ndaw ñu ne xanaa dafa fekkul waa ji doon bandi international ba ñëpp xam ko mu ne baalixatan ma balaxat ak nu mu mën a toll salaatu bi moo manul bakkaar moo ko mënta résister xanaa kon war na la intensité lumière bi nekk ci salaatu bi mu ne beneen sew-sew bi nitu yàlla yu mag yi lay dal mooy di nga yéeg ci wilaaya di yéeg ci wilaaya ba jékki-jékki dugg ci benn xadara boo xam ne da ngay dof daf lay jural dara foofu mooy da ngay nekk ci dut perpétuel ci tawxid bi nga nekk waa man ci lan man ci lii te loolu nitu yàlla yu mag yi lay dal mais dinañ sécuriser sa ruux ba doo am dut ci tawxid ndax nit dina toll ci tawxid foo xam ne bootul ci weddiwaat yàlla lay nekk du dëgg gis nga chercheurs yi dina leen dal ñuy recherche di recherche la leen mandaté maanaam ñu weddi après lool loolu gis nañ ko ba tey mais yow yàlla day sécuriser sa ruux ci waxin daal ba doo yàqu ci waxin te loolu rek doyoon na sëkk mais Cheikh na Tiyaani nee na à condition salaatu bi kan la ko yàlla jox yonent bi yonent bi kan la ko jox kon képp ku ko infiltré di di ko jàng doo ci am dara <laughs> doo ci am dara jaaral ci yoon wi rek nee na kon bi chartil isnif as saxiix faw nga am ndigal lu wér minhu ci cheikh na tiyaan yi direct wala nga am mimman azina lahu ku cheikh jox ndigal bi te mooy muqaddam yi ak xulafa boobu benn ngëneel la sëriñ bi dina ci ñëwaat après ci kanam mu ne beneen bu ñaareel mooy xisbu sayfiyu bu dee xisbu sayfiyu nag sëriñ bi yaatal na ko parce que xisbu sayfiyu effectivement dañ cee taalif téere lëmm nga xam ne dañuy jàngale lan mooy sayfiyu ak njariñ lekk yu mel noonu waaye doy na ci rek sayfiyu yàlla kese maanaam dafa mel ni laa illa allah moom lañu étalé di ko étalé ba mu doon sayfiyu moo tax boo déggee ko naan sayfiyu doo ko jàng ndax dafa foor boo ko commencé jàng da ngay ñàkk da ngay sonn da ngay gaaw a dee euh, kéemaan la ndax laa ilaha illa allah buñ étalé rek mooy sayfiyu te ku ko déglu gis ca tawxid ba fa nekk di nga xam ne sayfiyu yàlla kese la yàlla kese na ku fa nekk war ngaa mën a tàggoog obscurité yëpp moo tax nag nit ñi loolu la ñuy tuddee ne doo am dara da ngay nangam da ngay tàng da ngay naxar deret yooyu yëpp waxu seetaane la rek ndax xam naa ngeneel ne ci say fii la dul yéene eh, jàmm bi jàng ko ndax loo xam ne benn nga koy jàng mu remplacer yu baree baree bare bari loolu seetaane du du seetaan loolu am say fii nag Cheikh Omar nee na bon du ma ci attardé wu quelque rek laa la ciy wax ak moom li mu ci wax yëpp nee na quelque rek laa la ciy wax xam naa ne daal falahu isnata achara alfa xasiya say fiyu daal li tax mën a la duma ci sori mooy téere yëpp daje nañ ci ne am na douze mille yiw nga astafurlaa douze mille jagle jagle waxuma yiw douze mille jagle benn jagle benn bi rek benn bi maanaam yóbbu na la àjjana benn bi rek parmi les douze mille tey ci des bokku ci benn bi daal ngay jàng ci douze mille ñu fay la douze mille jagle benn boobu ci jagle yi moo la yóbbu ba sa logement àjjana nga tëdd yeneen faveur yi nag ñëwagul yooyu moom xajagu fi boo jàngee beneen say fi ñu joxaat la douze mille jagle boo jàngee beneen say fi ñu joxaat la douze mille jagle fekk yaa ngi jàng say fi daal di am loolu teranga ji kon ku la ko xañ jàppe ko noonu qaala cheikhna anhu fa man daawama ala qiraatiha xasalat lahu thawaabu Euh, sawaabu lahu alxaas bi ajmaiha adduniyawiyati wal uxrawiya euh, qaala qaala qaala radiyallahu anhu qaala jibril linnabi sallallahu alayhi wa sallam li sayfi isna achara alf xaasiya sittatu alaafin fi dunya wa sittatin fi l axira fa man daawama ala qiraati xasalat lahu thawaabu bi ajmaiha adduniyawiyati wal uxrawiya sayiduna jibril moo andil yonte yàlla muhammad sirru sayfiyu xam naa yow mi jàng xadis di nga ne gisuma ko ci benn xadis doo ko fa gis ndax nag wax dëgg yàlla euh, coup de téléphone yi président di jot yëpp dëgg yàlla ña nekk ca ca biti ak ñi ne sax ci gouvernement bi ñëpp mën nañ koo xam doo xam dafa am yu officiel rek ak yoo xam ne officielul du dëgg yu officieuse yi nag doo ko yëg kon nga muñ ko rek te xam ne yaa ko yëgul jibril wax ko ne ko euh, sayfiyu bi lumière am douze mille ngëneel la am mu ne ko six yi ki ko jàng benn yoon fii lañ ko koy fayee ci àdduna bi six mille ngëneel yi mu ne yeneen six mille yi àllaaxira lañ la koy faye ndax fa nga ko gën a soxlaa ba tax ne képp ku dëkkee jàng bu sayfiyu di nga am ci ay jagle yoo xam ne àdduna lañ la koy faye ak yu àllaaxira yi te man maa ngi yëg ne benn sayfiyu bi six mille ngëneelam yi nga xam ne fii ci àdduna lañ la koy faye maa ngi yëg ne boo fi dundoon deux mille ans doo ko mën a consommer kon en réalité te lu ci des du tax ñu neenal ko dañ la koy dencal fële kon nga xam ne loolu kéemaan la lii nag kenn waxu ko Cheikhu Tiyaani mi nga xam ne moo gën a dëggu kuy wax moo wax loolu ne yonent bi gën a dëgguñ kuy wax moo ko wax ne Jibril mi nga xam ne yàlla nee na amin la moo ko wax yàlla ci boppam nag moom mooy asdaqul qaa'iliin moo wax lii waaye ci fiw lii li la ci Cheikh wax mais Cheikh Omar yittem bu rëy tax na bëggul a bàyyee noonu ndax lii doyoon na wax mais du la bàyyee noonu dafa am benn téere bu ne fii bu ñuy tuddee jawaahirul euh, euh, xams jawaahirul xams benn téere la boo xam man am naa ko waa ji ka taalif moo mag fuuf ci zahir Cheikh na Tiyaani kon moom yàgg na fi lool taalifoon nag benn téere boo xamee ci baatin ak ci sirru la ko def téere bi man ba ma ko amee léegi léegi mu jege vingt ans euh, kon xam naa euh, li Cheikh Omar di wax téere boobu nag la dem jëli ji te defuñu ko ci tarixa tiyaaniya Muhammad Xawsullah moo ko def benn borom xam-xam benn nitu yàlla bu mag moo def téere boobu di ci jàngale ngëneelu sayf dafa bëgg pour boo boo boo bëggee weddi li Cheikh wax moo ne la waxu keneen pour tiiñalee la ko nekk nela keneen ku dul Cheikh wax na ci ay sayfu ngëneel yoo xam ne ni yow boo ko weddee kooku ngay weddi waaye du seexu tiyaani ci boppam moo wax loolu borom téere boobu moo ne i'lam anna sayfi ayatun min ayati llahi taala fiha ajaibun la tuxsa wa garaibun la tunkar wa aktharu ahli llahi wajadu alfayda alfayaad min hada addua wa saaru minhu maxfudina bilxadi lawfar borom téere boobu na nga xam ne gis nga sayfi yu bii sayfiyu nag ñu ngi koy askanal Seydina Ali ñu moo ko génne mais xisbu lii lañ koy wax maanaam nitu yàlla moo nekkoon ci ay xat-xat nekk ci géej euh, wala bale bo Mughni la euh, ya yonent bi ci boppam feeñul ko boppam dicté ko ko ba mu jeex ñii ne déedéet Seydina Xadir dicté ko ko ba mu jeex ci la ko bind mu commencé yaatu waaye mu ne nag am na ay ké daanaka kéemaan la ci kéemaanu yàlla yi miracle la say fii ci boppam rek miracle la ah ba tey mu ngi koy doon ndax ñaar buñ jote woon kenn ki nekk naa la jàngal say fii mbokkam yëpp dinañ daje def délégation rek den nañ dem rek mu jéggalu ndax daal yi wóorul wala xanaa ko kéemaan la ndax ku la tëkku ne sa àdduna tukki war ngaa xam ne te luñ cay ragal lu ko raw a ci ne say fii dundu yàq dundu nit la mën a yàq dundu nit jekki-jekki ñu amputé sa tànk droite jekki-jekki amputé gauche bi jekki loxo bi ñu ne jabet la ñu dagg bi ba ba ñu daggat <laughs> ñu jekki mu am maladie de jaare ñu jekki tension bi wàcc na ba yàgg mu am arrêt cardiaque dee dem safara ci fi mën na lool am nga ko xam lii mat naa wottu moo tax mu ne kéemaan la ci kéemaanu yàlla yi man gis naa koo xam ne siru say fii la amee woon doon ko jàng ta jàng ko ba yaram bi tàng ndeysaan ku jàpp njàmburam la nag benn jigéen taxaw ak moom di ko di ko di ko xas xas yu metti euh, yow doo lii doo lii ndax ñooñ yàlla leen nattoo yu mel noonu di ko xas di ko xas mais moom sëriñ bi mu ngi toog rek sëg mais ndaw si mi koy xas moom nag mu ngi def demi tour ndeke dafa am ku doon boyal ay xal foofu ci gannaawam benn fourneau buñ fa tegoon tegoon ko pour mu janoog air bi pour boyal xal yi muy wax nag sëriñ bi noppi rek muy def demi ba tiim nag xal yooyu continuer di wax yëgul yëg yaram bi yëpp ñor ndeke jàpp na yi lakk euh, muy yuuxu sëriñ ba tey jugul fi mu toog ba tey waaye moom moom foofu lañ ko jëlee yóbbu ko hôpital te ni ma xamee xëy bu après dina ci jële séquelles yoo xam ne euh, bokkul ak feebar yi ma ko yëgal ndaw soosu defe naa dee na sax waaw mu jën a dee bu yàgg yàgg yàgg ndax sëriñ boobu mu jëna ma tàgge ndaw soosu laata muy de sonnoon lool ba fa coono yem maanaam dama la bëgg a wax ne kon bu ne kéemaan la kéemaan yi moom c'est visible ba tey nu ñun ñaa ngi koy dund wala tunkiru kenn du ko mën a weddi d'ailleurs sax gaa yi yàlla ñi ci ëpp am nañ ci ay kéemaan yu rëy rëy yoo xam ne nii dund nañ ko ci sayfiw sayfiw moom ko xam ko xam sayfiw rek Euh, xam nga yow yow miy déglu wala koo xam koo xam ne def na ci ay kéemaan jëlee nañ ci jaafaru sadiq muy mu mel ni dafa bëgg a commencé tudd ngëneel yeeg kéemaan yi nga xam ne sët la ci yonent bi nee na la anna lahu asma adida minha sayfullah wa yaminullah wa qudratullah wa yadullah wa burhanullah wa samsaamullah wa xisbul yamani wa xisbullah wa sahmullah wa xisbul bararati wa xisbul azam wa xisbu sayfi euh, maanaam lenn lu ne dafay laaj ñu wax la tur wi lan la étymologiquement boo ko déggee rek di nga mën a xam lii la lay jariñ ndax leer gi ci nekk amul luñ koy tuddee lu sayfu sayfu ku ne xam ne mooy fi jaasi jaasi jaasi kan mu ne sayfullaa jaasi yàlla laa wa xam nga jaasi rek kese kese bu ko Mor Njaay mi yoree rek te kaar mu lew loolu kum ko xàcci boo wattuwul bu la dalee dara dal la hmm? waaw jaasi nit nag moo mën a daggaati jaasi yàlla moom nu muy toll mu des dinañ ko tudde sayfullaa jaasi yàlla ji jaafar nee na dinañ ko tudde yaminullahi ndijooru yàlla effectivement continuité la jaasi fan lañ koy téye ndijoor mu ne dafa bëgg a wax ne gaa yi yàlla yi bu ñu demee ba sës ndijooru yàlla bi ñuy embrasser rek dóor moom mooy sayf yi am na ñu ko tuddee qudratullah la force divine kàttanu yàlla du benn hmm? jaasi am nga force moo koy dóor ndax euh, almutanabi wax na ne wa aadatu wa an yusha bi jawharihi wa laysa yulamu illa fi yaday batali borom laam yeba nee jaasi dëgg euh, dafa am ñaari phase dafa am phase boo xam ne tera taar la taar te mooy nit ku ut benn jaasi defal ka mbar mu rafet utal ko perlage di dox wékkoo ko est-ce que du taar ñoom dafa bokkoon ci seen taar ñu ne ay waay perlage yu jaasi bi moo rafet mu ne waay njariñal jaasi dëgg-dëgg balañ koo xam loxo bu loxul loxo bu loxul teeku muy jàmbaar bu ci liggéeyee rek def ci lu ñu koy nettali euh, Lat Joor Ngoone Latyr la lañ koy nettali ba tey jaasi ju lew hmm, ak njàmbaar moo tax mu jaasi waaye jaasi lu mu lew-lew nee na bu ko yàmbar téewee da ngay jéppi jaasi ji fekk jaasi deful dara de waajala rek loxo ba ko téye moo moo moo yàmbar moo tax kon force mooy gunge jaasi moo tax mu tuddee ko qudratullah mu ne tudde ne itam la mais divine la main divine mooy signaler la force divine rek mu ne wa burhanullah tudd na l'argument divine maanaam bu ñuy werante am nag amul jaasi bu fa jaaree rek lépp leer wala dëgg xam nga bari na li sëñ Cheikh di wax bari na ku la bu xeex baa koy arrêté yab bi bis boo leen xeexee songoo donte yaa ko gañe sax waaye dana fa jaaree respecté la tudd na itam samsaamullah samsaam mooy firi jaasi mais jaasi yu ñaw yooyu nga xam ne double tranchant la fu mu jaar yàq ko mu tudda samsaam am na ñu ko tuddee xisbul yamaan yi ndax imaamul yamaan yi mi mi mu mi mu jóge woon am na ñu ko tuddee laa mooy maanaam xisb xisbu yàlla bi effectivement am na ñu ko tuddee xisbul azam xisbu bi gën a rëy xisbu dina firi parti mais itam dina firi ab xaaj euh, am na ñu ko tuddee xisbu sayf yi defe naa nag boobu ñun moo agsi ci ñun ñëpp xisbu sayf yi ñenn nañ gàttal kanaan sayf yi waaye bu mu ci doon ci tur yi jaafaru sadiq wax sa indique à quoi mooy c'est une force hmm? c'est une fatalité moo tax euh, euh, xëy na nit ñi phase boobu rek lañ xam euh, jàpp ne benn armement la mais fekk na nag ngëneel yi xamu xamul nu mu toll wa qaala cheikh abu abdullahi al andalusi i'lam anna man kaana sa'idan fi dunya wal axira yasulu ilayhi hada dua mubarak gis nga sëriñ bii te abu abdullah al andalusi moo wax ne moom daal balaa mën a nangu de ne bonheur agsi na ci nit àdduna ak alaaxira mooy nga dem ba jot ci ñaan gi nee na ñaanu sayfiyu daal loo mën a am daal ci àdduna la bëgg a wax wala alaaxira te xamagoo sayfiyu sa am am des na ndax bu dee alaaxira yiw bi kenn xamul nu mu toll bu dee àdduna sécurité bi mu lay jox kenn xamul nu mu toll mu ne nag kon ku ko amagul sa yëf matagul wax nag benn góor ne ko mu may jàmbat insécurité ak jafe-jafe ak liggéeyaate xam nga yooyu dafa xew liggéey nit ba tànkam jël yëreem yóbbu sol jël dàllam dem liggéey ji ko jàmbat ma ci yu bari ma ne ko mais del jàng sayf yu mu jël loxo bi teg ci gémmiñ gi ne dafa foor ma ne ko ma waa dinaa la bàyyi ak ñi lay liggéey comme sayf yu foor na ba attanoo ko ba pare mën a exposé bàyyi sa bopp bañ gaañ la mais loola dal yaa ko teg sa bopp xamoo et sa sécurité ngi ni nga ne mukk duma ko laal léegi xam nga fooy mujjee xamba yu ne nga dem sangoo fa maaman buñ la wax nga dem ne noo na ma na ma na ma sang ndax cat yi wóorul jamono yi te yow yaa ngi séef yu boo xam ne ni moo raw bomb xam nga xam nga ci ci mpo nga ne ah xaalis bi ngay wër ne danga koy joxe ku ne laaj la sept cent mille huit cent mille nga naan noo jar na ko sécurité amul njëg sécurité yàllaa ko yore Cheikhu Tiyaani jox na la sécurité boo xam ne benn sayfi yu àndul ak kenn mënal la dara nga bàyyi ka fi di war ji foo jëm foo jëm moo tax góor gi ne ma noo yooyu dafa tàng ma ne nag kon nag xaaral ba am solution man maa ngi dem de même que wa qaala cheikhna radiallahu anhu inna xizba sayfi wa salaat alfatix yugniyaani an jami al adkar lii citation directe la Cheikh na yi moo ko wax ci jawaar ma ànd ci benn lettre bu mu doon def benn waaye daf ko laajoon ay dog daal ci ay tur yàlla ne ko bii may ma ci ndigal bii may ma ci ndigal bu bu ne mu tudd ko Cheikh ne ko baax na yëpp baax na jox naa la ci ndigal mais de maa ngi bu dee bu dee dama la bëgg defal conseil gratuit kese mooy maa ngi lay yëgal dara werde yii ngay jël boo xëyee teg way bi teg lu ne nga laal ko cheikh nee na loolu da ngay sonal sa bopp rek eh, sama benn sëriñ da daan def boo ko indilee waaye waaye ndara mu ne yëpp bari bagage la rek liy faj soxla du nekk fii bari bagaas la rek wax na dëgg ndax ña amee loolu seen jabar du mën a bale seen néeg mu rek réglé ndax bis bu jot ñu xëcc xaatim yi fu ne ne bàcc teg te ñoom dépense suba amuñu ko ñu ngi bëgg a rey nit ñi xaatim bu ne nga xëcc tur wu ne nga ne bii diw ma ko dogaloon te dépense suba amoo ko dajaleel yi dajaleel yi nga dem taali ji ko moo gën te uti lu faj soxla Cheikhu Tiyaan nag ne waa jooju gis nga eh, maa ngi lay wax na la werd yëpp am nga ci ndigal waaye pourtant de xisbu sayfiyu ak salaatul fatiha boo dajale woon mboolem werd yi ci monde bi ñoom ñaar man nañ doon équivalence am man sama sëriñ wax nañ wax na ma ne yaman azharal jamila ak sayfiyu dañ doon rawante pour jëm asamaan seen lumière lay wax nee na biñ ne fitax rek dem nee nañ yaaman azharal jamila ak sayfiyu benn benn bu ne ñu ngi koy xool mais benn rawul sa moroom benn rawul sa moroom ñuy dàqante benn rawul sa moroom ba biñ leen mujjee gis ñoo exékondoo duggandoo asamaan ah xam nga ne ko kéemaan la ah yow nga xam nag valeur yu toll noonu salaat faate moom romb na ko lim ci wax moom doo ko déggati fenn ñaar yooyu doyul doyul jàng doxi sa soxla mais nga jël way nara yi tegle naan xaatim bii baytul xaali bi boo ci dugalee sa tur dugal turu kii loo ko laaj mu joxal ko du la ko jox du la jox dara li la koy wan mooy ñi wax loolu koo ci fekk boo ko joxee ñaar téeméer mu dalay gërëm ba suba moo lay wan ne kay baytul xaali bi jënd lu ko dara nga xam ne kon système bi yàgg na ndax kii kii taalibe Cheikh la bu doon laaj Cheikh yu mel noonu pour rek am wayndere boo xam ne bu valeur la Cheikh rek yëpp sonal sa bopp la yemal ci saat fate ak xisbu eh, sayfi léegi ba ba fii may wax yow nag kooka wax danaan non kon jox ma sirru bi sirru bi mooy mooy njàng mi rek ban sirru ban sirru amul sirru sirru bi mooy li ngay jàng rek dafa fekk nag boo ko yàggee jàng dina dem bu leer gi buñ ko insérer sa ruux benn per bi tukkal na àdduna benn per bi waaye nag loolu da ngay toog ba mu ñëw hmm? waaye jox la rek nga noo jox ma code bi ban code amul code cheikh ne ko saat fatiha ak jawhara maanaam say fiw doy na mboolem wëlis werde yëpp te maa ngi lay yëgal ne kenn jaamoowul yàlla lu gën ñaar yooyu mu ne ko bu dee xisbu sayf yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaat na ne am na soixante mille karaama moom sayf ba tey au delà de douze mille ngëneel yële mu amoon amaat na nag soixante mille karaama xanaa bii ma doon wax rek bokk na ci waa jooju nga xam ne dañ taxaw di ko xas ki kay xas fa mu taxaw fa la ay yërëm tàkkee loolu karaama mu soixante mille karama wa muraadi an azkura min karamati al uxrawiya faqat fala yumkinu li dikruhu wa ifshauhu fa aqulu billahi tawfiq mu mel ni yaa ngi at ñaa Cheikh kon nag <laughs> nett nañu soixante mille karama yi soixante mille karama ban téere la xaj mu ne noonu du ma wu nag ci di la nettali yi benn par benn d'ailleurs pour bañ la tiital ndax sécurité bi na torop bañ la tiital ngëneel yi mu am ëllëg laa lay won yi mu am ëllëg rek laa lay parce que effectivement ngëneel yi mu am al euh, fii ci àdduna ku ko tudd bawatul nit ñi daw la hmm? mu ne mais teraanga yi mu am alaxira muy minha anna man lazima lazima qiraatahu sabaxan wa masaan yuxibuhu llah mahabatan xaasa mu ne bu njëkk bi mooy képp kuy jàng sayfiyu journalièrement matin et soir wala boog une seule fois par vingt quatre heures yàlla ci boppam moo lay bëggal boppam lan mooy distance yàlla ak jàmbi mooy ay bàkkaar ay péché mooy obscurité loolu lay enlever bu ko enlever sa digganteeg sa borom lu fay dox intimité moo tax sëy fii ku koy jàng yàlla moo lay bëgg xam naa looloo tax ñu ne ku yàlla bëgg nag lépp lu tilim du agsi ci yow moo tax ñu naan boo koy jàng da ngay ñàkk fekk déedéet alal ju lewul moo dul mën a agsi ci yow alal ju salte moo dul mën a agsi ci yow alal ju tilim moo dul mën a si ci yow loolu karaama mu ne bu ñaareel bi anna man katabahu wa allaqahu alayhi yuaddu min addaakirina allaha kathiran wa addaakiraati wa in lam yadkurhu say fiiw boo toogee di ko jàng yàlla dafay dépêché ay malaayika yuy ànd ak yow di jàngandoo ak yow say fiiw bi rawatina boo dee tijaan soixante-dix mille malaayika la ñuy doon mais suñu paree loolu yëpp yow lañ koy bindal ci yool mais nee na beneen ngëneel bi mooy boo bindee nag sayfiyu cest à nga jàpp ba sell julli ñaari rakk bind sayfiyu ba mu jeex bindin bu sell après nga tëje ko salaatu ala nabi wala salaat fatiha léegi nag loolu nga def ko benn njël la takk ko takk ko nee na léegi au de bindal nañ la yiw mais fekk yaa ngi koy takk ci sa yaram malaaka yooyu dañuy ñëw di ko àndandoog yow di jàng ñu lay bindal yoolu ku koy zikkar xoolal lool xam nga ñun ñu ngi jàpp ne sécurité la fekk déedéet ndeke mag ñi njëlle yi ñu daan jël ak téere yi di ko takk ndekete loolu lay def man def naa lii lu ëpp dix ans man bind say ba mu jeex takk ko sama dënn waaye li ci xew yépp neexu la wax euh, waaye charte bi mooy bind bi faw mu leer te mu faw mu ànd ak njàpp faw mu am itam ndigalu muqaddam bu la ko jox ndax ni nga ciy jàng ñaane ndigal ci jàng ko noonu nga ciy ñaane ndigal pour bind ko wa minha anna man laazama qiraatahu sabaxan wa masaan laa yuktabu alayhi danbun euh, ñetteelu karama bi mooy képp ku dëkkee jàng sayfiyu matin et soir yàlla du la bindal benn bàkkaar benn maanaam kenn waxul ne doo def bàkkaar kenn waxu ko mais dañ ko dul bind xanaa loolu kay wax fa la yàlla dala dul bindal bàkkaar te loolu buñ demee ci rey maanaam ci le monde spirituel effectivement bu dee sayf yu lumière la moom lu doon lëndëm an euh, ànd moo tax du ñëw du fa am place nag wax dëgg yàlla wa minha an man laazama qiraatahu sabaxan wa masaan gafara allahu lahu ma taqaddama min danbihi euh, continuité la ci li mu wax euh, quatrième ngëneel bi mooy képp kuy dëkkee jàng sayf yu matin et yàlla dalay baal maanaam bien avant ngay jàng sayf yu ba bés bi nga toog lépp loo masa a ci péché yàlla da koy gome ba mu set wicc ndax lumière say fiw mais li des ci sa kanam fekk yaa ngi jàng say fiw kenn du la bindal ci bàkkaar égal doo am bàkkaar bokk na ci karaama yi am na man qara'ahu fi sanatin la tuktabu lahu danbu tilka sana dañ wax ne premier janvier ba 31 décembre ku ne xam ne ne mooy année bi Cheikh na Tiyaan nee na boo jàngee benn say fiw benn benn bi ci année bi muy premier janvier ba 31 décembre kenn du la fi bindale ci bàkkaar nag wala nga bàyyi sax bàyyi ba 31 décembre nga toog ci bis boobu xam naa ku mënoon di ko def bis bu jot 31 décembre comme bis bu xumba la yow bu guddi ko jotee nga jàpp euh, julli ñaari rakk toog jàng benn sayfu yéene ci gome li nga def ci année bi yëpp dañ koy effacé te xamu ci innamal amalu wa innal umura bi xawaatimiha wa minha bokk na ci ngëneelu sayfiyu anna man qara'ahu marratan yu'ta ibadatu sanatin wa marratin yu'ta ibadatu eh, sanatayni wa thalathan yu'ta ibadatu thalath sinin wa hakadha ala hadha al-mihya dañ wax ne ku bind maanaam moom ku jàng sayfiyu benn yoon xaw ma defoon nga bàkkaar xaw ma defoo bàkkaar mais foofu nga toog yàlla yabal na malaaka bu accordel jaamu yàlla un an trois cent soixante cinq jours xam nga bale jéggal nañ la bakaaru trois cent soixante cinq jours mais bii moom dafa wax ne dañ la bindal jaamu yàlla guni toll jaamu yàlla guni toll mooy la vingt quatre heures yépp sa vingt quatre heures bu ne nga feesal ko ci naafila ak julleeg koor ak saraxeeg def lu baax ak tasbih ba vingt quatre heures bi jeex ñu def ko ba muy trois cent soixante cinq jours nga xam ne amu ci deux minutes boo xam ne vide lay tudd loolu ku ko defoon laa wax na mu toll ci équivalence su yiw benn sayf yu la tollool te loolu jafe naa def xanaa vingt quatre heures bu ne di nga ci nelaw xanaa ah boo mënee biddanti di nga dem nelaw huit heures de temps ba dix heures de temps boo ko mënul minimum di nga nelaw deux heures de temps wala quatre heures mais bu dee sayf yu benn bi mel na ni jaamu nga yàlla un an boo jàngaatee ñaareelu sayf bi mu mel ni ñu ngi wax léegi matin et soir euh, bi boo ko jàngee ñu bindal la jaamu yàlla deux ans ferme nga jàng troisième ñu jàng bindal la trois ans quatrième quatre ans cinquième cinq ans ñu ne Cheikh lool dina bari de mu ne yàllaa gën a bari la ñëpp ci waxin mag ñi quarante et un sayf yu daan nañ ko jàng boo toogee jàng quarante et un sayf yu quarante et un sayf yu nag li tax ma koy déconseillé boo deful attention yow ma toog di ko jàng da ngaan jëppee tàkk waxin la parce que lumière bi dafa bari benn sayf yu ñaari sayf yu jëm ak moom 41 am na ku ma ko ñaanoon ma ne def xaw ma looy ubbi waaye fa lay jaare tëju man nga jàng ba yàgg ne jëppe tàkk parce que boobu tàngee kenn xamul lu mu toll. Euh, waaye ci waxin ku ko mënoon def 41 sayf yu jaamu nga yàlla 41 na foofu nga toog yu yàlla bind nga defaat que deux jours 82 ans la. xam nga ku naan kon laytu xadri xayrun min alfi shahrin te moom at mi lay am at mi jaamu yàlla quatre-vingt-trois ans la quatre mois yow déjà si say fiyu rek mën nga ko def lu ëpp loolu ci ay fan yu néew boo góorgóorloo loolu mooy dellu ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam li mu wax ci xadis te xadis boobu wér na mu ngi ci fadailul amal yonent bi dafa wax ne ku jàng qul wallahu ahad dix fois yàlla bindal na la benn château ca àjjana château bu nekk xurul ay ni mu nga fa euh, boo jàngee euh, euh, boo ko jàngaatee dix fois ñu bindal la benn château château bi nag boo ko déggee mooy château bi jardin de luxe bi rek moo ëpp Afrique te jardin ba du dara par rapport grand ak maanaam grandeur château bi château bi ci boppam mën naa ëpp àdduna nga jàngaat yeneen fukko ñu bindal la beneen château nga jàngaat yeneen fukka trente boo ko defee muy ñetti château quarante boo ko defee muy euh, nangam Sidna Omar mel ni ku tiit tee gémmeñ gi nekk ah château yan mu nekk château yu ñu équipé ba pare mu am ay xurul ayni ak ay servante ak ak ak équipé nañ ko daal ba duggaa ci des mu nekk fukki lixlaas mu nekk ah mu nekk waaw boo ko defee nag euh, fukki euh, boo ci tegaatee fukk ñu ne beneen mu ne beneen nag mu ne yonent bi ne yàlla def beneen mu ne ko kon isan la nag suru xusuuranaa kon suñu château yi dañ dinañ bari de yonent bi ree nekk ngëneelu yàllaa ko gën a bari yëgoo ne nitu yàlla yi kenn ku ne yàlla may na la ba nga foog ne yàlla deseetul lu muy may keneen te dara jugewul ci man eh, ay magasin boo gisee coow li bari ba tey ku nekkaan sama sëriñ a raw sa lu ko jur sëriñam dañ koo maye may ba mu foog ne yàlla deseetul lu muy may keneen waaye bu bu xool magasin wu yàlla dina yëg ne moom ndekete jotuñu koo jox dara moom sëriñ ba te sëriñ ba loolu lay def ci boppu taalibe yi taalibe yi jàpp ne ku dul sëriñam new fi fekk na dara amu ko daanaka ci xéewalu yàlla par rapport ak la fa des bokk na ci ngëneel yi ann allaha taala yuti qaari'ahu thawaaba sawmi ramadan wa minha ann allaha taala yuti thawaabahu misla sawaabi qiyaami laylatil qadri baaligan ma balag bi kulli maratin problème gën na am dañ wax ne benn sayf yu Cheikh Omar nee boo ko jàngee une seule fois yàlla accordé na la yoolu weeru koor yépp ba mu jeex maanaam premier jour ba trente jours te yonent bi nee na ci weeru koor ngëneel yoo xam ne ni kenn du ko nettali ñu maanaam kenn du ko weddi weeru koor boo duggee rek yàlla bàll na say bàkkaar boo wooree yàlla nangam bés bu jot am na ay milliers des dizaines de milliers ñu yàlla jéggal ci safara nangam nangam nga dem ba trentième jour bi loolu yëpp laax buñ ko totaliser moo tolloog yoolu benn sayfiyu xam nga ni kéemaan la te kiy jàng sayfiyu après bu weeru koor jotee du woor day woor biir koor gi sax xam naa mën na ci jàng sayfiyu bis bu jot bokk ci beneen karaama bi sayfiyu am maanaam nag lii lii fada fadila la maanaam ngëneel la ngëneel ak karaama bokkul ak wareef maanaam masalan ku ne woon jàng naa say fi weeru koor gi du ma wor déet bokkul yoolu ko weeru koor bokkul ak faratay weeru koor du maanaam weeru koor gi boo ko bàyyee yow yëfër doon boo tuubul kon bindal la yoolu weeru koor bokkul ak faratay weeru koor mu ngi mel ni ku ñu envoyé crédit après ñu jox la bonus xam nga bonus ba bokkul ak crédit ba du dëgg bonus ba ngëneel luñ la may la mais taxul muy crédit ba li la koy wan mooy bare na yu crédit man te moom du ko man loolu lañ lay wax mais taxul nag nga ne du ma woor parce que jàng naa sayf yu déedéet loolu leeral la nee na bokk na ci ngëneel yi képp ku jàng sayf yu dinañ la bindal yoolu ku taxawal laylatul xadri xam naa répétition la ndax weeru koor ku ci dugg ku ñu bindal yoolu weeru koor laylatul xadri mais après dañ la ci beralaat beneen yoolu boppam boo xam ne laylatul qadri te wax nañ la léegi ne xayrun min alfi shahrin quatre-vingt-trois ans quatre mois dinañ la ko bindal jaamu yàlla quatre-vingt-trois ans quatre mois ci benn sayf yu bu ne xanaa moo jiitu kon ba ëpp ba jiitu xanaa bii moo ëpp bi jiitu parce que bi jiitu trois cent soixante-cinq jours lañ la wax ne benn sayf yu bu ne équivalence am la ci jaamu yàlla mais bu dee laylatul qadri lañ la ci bindal données yi day changé hmm? yal na fayal ñu mag ñi wa man qara'ahu ihda wa arbaina marra fa inna allaha taala yarzuquhu karamati al awliya wa yaxsul wa fi ayi makaanin kaana bi idnillah bokk ci yoolu qiraatu sayfiyu mooy képp ku ko jàng maanaam quarante et fois muy lii waxoon léegi quarante et fois ku jàpp ba sell toog kaar ci benn jotaay nga jàng say fiyu quarante et fois yow yàlla dalay def wëliyu ba def ci yow ay karaama yuy feeñ ci yow maanaam loolu man mag ñi daan nañu wax ne quarante et un fiyu ku ko jàng loo koy yéenee boo jugee doxi loolu te sot xam ne sotti na ma ne boo ko fekkee yàlla dina la def làmp itam ci sa jamono ba ñëpp tabaarakallahu nangul la tudd la say fiyu yàlla may na ko loolu muy quarante et un euh, wa minha anna man qara'ahu kulla sabaxin thalaatha maratin ila tamaami arbaina sabaxan naala karamata al awliya wa saara azizan mukraman bayna al xalaa'iqi wala yuxaasamu wala yudaafacu ku bëgg itam daraja ak supériorité moo xam politique la wala sociale wala financière nee na sayf yu gannaaw bi nga ci amee ndigal chaque matin nga jàng ko trois fois chaque matin trois fois nga def loolu ba muy quarante jours yàlla dana la may ci daraja ak euh, kilifteef ak loo xam ne nii euh, teranga la loo dul xulóotee kenn ci àdduna parce que kenn dala dul ñemeeti maanaam personnalité daal foofu la yem quarante jours chaque matin trois sayf yu ku ci am ndigal mën nga ko def wa minha anna man qara'aha ixda wa arbaina sabaxan mutawaliyan ballagahu llahu martabat alwilaya wa kaana min awliya alladina yatasarrafuuna fi lxaybi dañu wax ne képp ku jàng sayfiyu 41 fois suñu maam Cheikh Alhaj Malick moom yooyu la def moom kéemaan la woon di ko jàng 41 fois euh, yoo xam ne yu toftaloo Euh, ci benn suba yàlla dana la jox martaba wilaaya ba nga bokk ci ahlu tasarruf neex naa gëm parce que say fii ku mën a am patience toog jànk loolu luñ la jiñ ci wilaaya war nañ koo gëm wa minha anna man araada ru'yata annabi sallallahu alayhi wa sallam aw nabi min al anbiya aw wali min al awliya aw waxidin min ahlihi aw aqaaribi falyaqra'uhu ihda wa arbaina marra fa innahu yaraahu bi idnillah insha allahu taala nee nañu itam képp ku bëgg yàlla wan la benn waliyu ci waliyu yi man daal dinaay dégg El Hadj Malick bëgg naa ko lool man daal yàgg naa dégg Cheikh Omar bëgg naa ko lool man daal bëgg naa Cheikh na Tiyaani man daal bëgg naa Seydi Abdul Qadir Jilaani man daal sopp naa lool gis yonent bi man daal yonent yàlla Nuux laa bëgg a gis yonent yàlla Isa wala Muusa nee nañu boo jàppee ba sell gannaaw boo ci amee ndigal nga jàng xisbu sayfiyu 41 euh, fois Euh, ci benn jotaay nga yéene ci gis kooku yàlla dana la may kiiman googu nga gis kooku ci ndigalal yàlla incha allah wa minha anna man qara'ahu ala nafsihi wadda wa walidihi ixda wa arbaina marra laa yarawna fi dunya shiddatan wala fi l axira mashaqa dañu wax ne képp koo xam ne jàng nga quarante et un sayfiyu donte doo ko def ci benn jotaay rek mais nga yéet nga jàng quarante et fois nga yéene ko sa bopp ak say wayjur yow doo sonn ci àdduna doo sonn ci alaxira neex naa gëm nag xam nga am na lu ñuy tuddee carte d'égalité de chance ah benn carte rek booy wane barab ñu jafal la yoo xam ne boo ko wanewul woon doo ko fa am waaw léegi yow nga mën a nangu boobu ne say fii nag ku ko jàng quarante et un fois doo am benn égalité de chance déedéet nag dinañ la jox carte boo xam ne égalité de chance la malaaka yi sax dañ koy xam wa minha anna man qara'ahu marratan waxidatan anjaahu allahu taala min mawtil fajati bokk na ci ngëneelu sayfiyu ku koy jàng ku ko jàng benn yoon sa dund deewuk mbetteel du la dal te mooy accident yi arrêt cardiaque yi euh, AVC yi te yooyu mu ngi persister rek mais kuy jàng sayfiyu neex na gëm mag ñi nga daan jàng da dañuy dee sedd hmm? am na ci ñooñ sax bala ñoo dee ñoom ñooy yëgle ne bis sangam heure sàngam la ñuy noppalu ñoom bu ko defee nit ñi euh, ñëw assister seen dëj ñu wax ne képp kuy jàng sayf yu yéene ci loolu doo am deewu mbetteel ndax deewu accident yi ak deewu euh, deewu subit yi xam nga yu ci bari dafa am influence ci avarit yi avarit yi lii ku koy jàng ñooñ dinañ la jege déedéet duñ la jege kon kay doo gaaw am dee yu mel noonu accident boo bokkoon sax car bootul euh, boo ci génnee fet foo toog di waxtaan bane ba ñuy nettali accident ba di nga rus a wax ne ci nga bokkoon ndax wér gi ngay wér kaar ak mucc gi ngay mucc bootul di nga dinañ ne lii lan la waaye yow ni accident yi bare nga bàyyi fa lii ne da ngay uti téere boo takk foo koy takkee moo lay wan ne seetaane yëf yi am na ci yëf yi am seetaane am na ci ndax say fii bi mu la ragal lool nga dee ne doo ko jàng te te toogoo ndax ñàkkoo ko jàng ba pare toog toogo noppiwoo woo sëriñ boo dégg yaa ngi fay dem ne dégg nga ne borom baatin la feebar la wa na anna man qara'ahu arbaina marra li ixdaari alxadir yaxduruhu alxadir alayhi kii itam ñi nga xam ne dañ bëgg a xam nga na Xadir dañ wax ne deewul mu ngi dund ba tey ndax moom lañ wax ne moo feeñu benn ci nitu yàlla jox ko ko nee nañ képp ku jàpp ba sell jàng sayf yu 41 fois pour bëgg a xadir teew ci yow ngir am loo ko bëgg a laaj nit yàlla daa nañ ko def bala nga faa jógee xadir day ñëwal bopp man na xaw ma ñun lu ñu doy xadir ñun ndax man si ma teel si boo xamee laa gëj a xam ne sax xadir am na alayhi salaam mag mu baax la moom xadir euh, waaye xam naa ki man lii kon man naa teewal keneen léegi yow bu dee yow tijaan bi li ngay wax mooy ndax ki bindali borom xawsu borom jawaayiru xams la Cheikh Omar da kay nettali rek euh, kon nga gis ne kooku soxla woon na gis xadir waaye dafa am lu ma fàttaliku ndeysaan benn nitu yàlla dafay dox ba yàgg xadir teew ci kanamam ndax nitu yàlla yëpp ndeysaan seen sommet jamono yooyu mooy yàlla naa gis xadir te kéemaan la woon moo la daan wax sa cër fi mu tolloog yu mel noonu wala moo lay introduire ci yonent bi xadir émissaire u Cheikhu la woon moo tax kenn gisatu xadir léegi kenn ke ah, fa la jëm moom la ñeneen ñi naan yont yàlla xular mais xadir lañ bëgg a wax xadir xadir mooy verdure moom nee nañ dafa daan jaamu yàlla ba fi mu daan jaamu yàlla di dund di nay ba taw bi tabaarakallahu wàcc fa ba mu amee verdure bu rafet alxudratu mooy firi verte verte ci arab léegi xadir mooy verdure bi alxudratu ak ixdiraar mooy verdure moom moom lañ tuddee xadir loo ci déggee ne kon moom ku ko gis rek sa affaire baax moo tax nit yàlla yi daan ko bëgg gis xatta même ci gént sax ndax verdure bi bu ñëwee ci yaw rek sa affaire dox mais benn nit yàlla day jaamu yàlla ba bés xadir feeñu ko nuyu ko jàmm santeeg moom euh, waa ji na tekk rek mu nekk xanaa xàmmee woo mu nekk déedéet mu nekk ma xam xamoo man maay kan mu nekk déedéet mu nekk man maay xadir mu nekk ah na def ça continuer li mu doon def xadir nag am problème ne ko meew lan la yow nit ñëpp ñu ngi ñaan pour gis ma mu ne ko non man dama am sëriñ te sëriñ bi ma am doy na wa doy goo xam ne yëgati ne keneen am na xajatu fi may laaj nax kooku nan la war a mel par rapport ak taalibe Cheikh na Ahmed Tidiane kooku dafa nuyu xadir mu ne ko na nga def ah man la xadir mu ne ah na def ça va pare na ci laaju ko dara expliqué wul waa ji jaaxle. taalibe cheikh bi xoolal kooku nitu yàlla la pour mën a am dimension boobu taalibe cheikh bi xoolal démb nga jël werd lazim ñetti fan ñeent cheikh yéegal la ci niveau boobu kan nga fi gis maa laan sëñ bi xadir laa bëgg gis dé dégg xam ne cheikh eh, mag la déggoo kenn kuy wax waxu xadir tiyaan yu bay xamuñu ko hmm? te amoon nay jamono ñëpp xadir lañ daan reefe alayhi salaam moo lay wan ne xadir yow sa collègue rek lay mujj mën a nekk mooy li ma xale bi waxoon ne ma asmaaw ahlul kaf yi nee nañ boo ko bindee turu ahlul kaf yi xale yooyu demoon ci euh, gorot ba caverne ba boo ko sangoo naan ka ma ne ko déet ëpp sangoo foo foo jëmee ñooñu ñoo mu ne noo ñooñ ay wëliyu lañ ma ne ko taalibi moom lan lay wecc ci benn wëliyu yow benn taalibi cheikh doo xam ñaata asxaabul kaf yi lay wecc nga bind ci turu kooku ne danga koy sangoo damay rek nga sangoo ko jaare fa tëju da tëju parce que moo nekk fu kawe kawe na nekk fu kawe kawe na torop waaye boo ko xamul ci bases ngay mujj euh, wa minha an al mudaawima ala qiraati laa yaxruju min addunya illa maa al iman walaw kanat la tuslax walaw kanat dunubuhu misle zabadi lbaxri gafara allahu lahu bi fadlihi wa taaba alayhi tawbatan nasuha bokk na ci karamaat yi sayf yi ku koy jàng euh, boo ko boo ko faralee di jàng doo génn maanaam doo faatu mukk lu dul ci ngëm ngay faatoo xam naa boobu Cheikh Tiyaani résoudre na ko ba pare ula damaanul Mustafa adnaani xisbil mawta alal imaani maanaam daal doo génn ci listam donte say jëf sax baaxul maanaam ko xamoon benn saay-saay boo xam ne bandi la caay-caay gune mu ngi koy def waaye guddi ajuma gune mu jàpp ba sell jàng sayf yu tiital tiital ci moom te xam ne lu bàkkaaram bari bari euh, ci yàlla dina ko jéggal euh, day deewee ci listam bokk na ci ana man daawama ala qiraati xalaqa allahu lahu xalqan xasanan xasanati fa ida dana ajalahu jaa euh, ilayhi dalika shaxs wa jalasa qubaalatahu fa yanzuru ilayhi fa yujibuhu xasan xusnuhu wa jamaaluhu wa yusabixu wa yusabixu allaha summa tuxriju ruuxu min gayri taabin wala mashaqatin wa huwa la yatawajja wala yadri bi shay dañ wax ne képp kuy jàng xisbu sayfiyu euh, yàlla daf lay maanaam xisbu sayfiyu bi nga jàng loolu ki ki ñu suivre ci gannaaw xam na loolu yàlla da ci bind benn jëmm ju rafet ndax lii yow eh, boo koy jàng lecture lay doon mais en réalité lumière lay doon boo xam ne ci xëy bu lay doon après jëmm jooju nag yàlla di bindee ci jëmmu maanaam sayfiyu bi nga jàng nga xam ne daanaka malaaka la ku rafet lay doon léegi nag boo demee ba war a faatu kooku la yàllay dépêché mu ñëw taxaw sa kanam wala toog ci sa wet ne asalaamaaleykum da ngay dégg tur nga foog ne gan guy nuyoo la nga ñëw xool ko mu rafet ba nga naan waa waaye kii mooy kan ngeen waxtaan di dégg yow yaa ngi foog ne waa kër gi nga koy dégg mais kër gi dégguñu ko mu ne non dama fi ñëwoon rek doon la setti yow nag ngay méditer ci rafetaayam ak xet gu neex gi ak valeur bi mu sol ak nangam ak ñàkk gi nga ko ñàkk mas a gis ak nangam époque boobu nag ngay médité ci yooyu yow xam nga ku la laajoon noo tudd sax xamoo ci la yàlla yabal malakal mawti mu rocc sa ruux Hmm? doo yëg metti tu dee ndax yaa ngi ci beneen yitte ak ki ngay waxtaan mu naan non dama fi ñëwoon rek di la seet si moom raytaan lay def xam na ne malaaka baa ngi ñëw te boo jëkkee gis malaaka bi mën nga tiit mu jëkk a ñëw commencé raytaan di expliquer ngay méditer ah yow foo ma xamee ah man yow wayu ni nga mel nag ni nga xeesee nag di expliquer doo yëg yëg gis sa bopp bar sax mais doo doo yëg benn mettit yàlla moo ko def li ñuy tuddee anesthésier pour anesthésier la ba doo yëg sukuraat wa minha anna almalakayni ida jaahu fi qabrihi li yasalahu an xaalihi yamuru llahu taala hada alxizra yujaawibu anhu bi axsani jawaabin gis nga waa jooju noonu yow buñ la sàngee sàngala mën ngaa bañ a yëg ne sax dee nga ndax yow waa ji tàggoow la yow ñu sàngala sàngala ndax cadavre nga mais waa ji muñ continue boo demee ba ñu suul la bay rob malakal ma malakaani yi buñ ñëwee muy munkar ak nakir di la laaj naan e man rabbuka ak di tiitalaate waaj naan e bàyyi leen kii waay kii lan ngeen ko ciy laaj kii li ngeen koy laaj c'est simple yàlla mooy borom moom moo lay tontul moom sayfiyu bi muy jëmma ju rafet jooju te xam nga moom existence am rek ci bàmmeel bi du réponse ah sayfiyu leeru yàlla la leeru yàlla nag nan lay toogee di waxtaan ak copain nga ñëw naa kaan ndax gëmoon nga yàlla xam nga loolu loolu kenn xamul lan la moo tax moom moo naan e bàyyi leen kii léegi yow bi nga tëddee sa lal ak bi mu naan bàyyi leen kii bu leen ko laaj pour yow benn scénario bi la maanaam yow yaa ngi sa néeg ba tey loolu ngay foog euh, keneen ñeneen dañ ñëw mu naan non bàyyi leen ko fekk yow xamoo ne diggante bi dëj nañ la ba dëj bi jeex mais doo ko yëg ndax noonu la yàllay atténuer tiitaange bi la war a dal waaw gannaaw nag jàng sayf yu rek moo la may lii yow taalibe cheikh bi jël nag du tariqa beeg yeneen favori yi ci des yépp te dinaa la wax léegi bu may daaneel beneen ngëneel goo xam ne gën na yéeme yii ñu fi tudd sax yow euh, kon lan lan moo war a nekk ci yow ci xel mu dal xanaa kontaan lool wa minha annahu ida qaama yawma alqiyamati yaxruju min qabri wa wajhu ka laylati albadri euh, laylat euh, laylat nisfi wa bi barakati continuité boobu la sayf yu di nekk ak yow ba bis boo dekkee yawmal qiyaamati boo dekkee sa kanam day weex tal tal ba mel ni quinzième nuit ci la lune maanaam li ñuy tuddee la lune pleine du noonu noonu ngay mel waaw kooku kan moo lay laaj naan naan foo jëm ak kii dañ lay escorter xam nga yenn melokaan yi loo bëgg a bëgg a nit ci ay cérémonie léeg-léeg kilifa di ñëw ak doxin boo xam ne ak ñu dar ko boo booy organiser da problème même bu la wanul carte doo ko sañati du dëgg euh, bokk na ci in annahu ida qaama fi qabrihi awalu man yusafihu nabi yow boo dekkee ci bàmmel boo dekkee amee kanam gu leer googu ki ngay njëkk a tabaarakallaahu nuyu mooy kii xam nga ku wàcc ci dëkk wàcc sa avion est-ce que du woon gën a woyof ci yow nga gis ñu lay teeru ki ngay fekk si mu ne maa ngi ci aéroport bi di la xaar xam nga bu ñëwee kooku boo gisee rek sa stress yëpp dafay wàcc waaye ñëw fo yàlla bu mu la jox numéro numéro bi nekk doxul koo wax mu ne xaw ma kooku hôtel boo jëm ñu ne non teew li nga jotoon xaay yor ci xaalis yëpp consommé nga moom lañuy wax ne màkk ku fa say réal say réal jeex say ree jeex mais yowmal qiyaamati imaginel kon foofu gënu la raklu mais yow booy dekki sa bàmmeel ki ngay njëkk a nuyu mooy yonent la Muhammad eh ñëw nga aksil bismillah xam nga ne ku dekki gis yonent bi waaye ah, yow sa affaire baax na di nga ne ma nag kon ñi jàng say fi ñëpp xanaa kenn ku ne yonent bi day taxaw sa buntu bàmmeel déedéet ay manifestation rek ku xam yàlla xam ne loolu la nangami milliards yi manifestation man nañ ko def kenn ku ne jëmmu yonent bi ngay gis fekk moom yonent bi mu ngi ci euh, taxta arsh toog fa di féexlu te mooy ni muy teewee ci maanaam fa yi niñ ko xamee wa minha annahu euh, ida xadara lil misan amara allahu taala an yuxaasibuhu wa yaqulu innahu yudaamiu fi dunia ala qiraati dua bokk na ci buñ demee ba war a régler waa ji ndax ñëppay dem ci balance ya ñu peese seen jëf yàlla day jekki ne eh leen kii yéen kii sama nit la wala boog say fii mooy ñëw ne eh bàyyi leen kii kii kii bokkul ci xam nga wax dëgg yàlla code de la route xam code de la lu ñu war a jàngale. léeg nga gis ay takk yu arrêté nit nankaan di la laaj ay dara waaw kooku dinañ ko def euh, euh, chauffeur président di daw ba yàgg benn waay takk der arrêté ka sa permis foo jaarak fi fii fekk même bu fa président nekku sax. rawatina nag président ne fa ne koo xam nga ne du xëy suba de finalement moom mooy am problème te pourtant fi ñu ko teg mooy pour laaj loolu loolu loolu loolu loolu mooy waaye laaj kenn nga mujje laaj am na lu xew ki nga laaj nga warul woon a laaj noonu la waa ji di mel ëllëg yàlla ci yàlla boole minha annahu ida wasala ila sirat jaala allahu hada alxirsa markaban ala sirat wa yaqulu irkab nii wa'bar ala fi aqali min lamxati labxil basar wa qiila yaxmiluhu malakun wa yamurru bihi fa ida yaqul lahu man anta qaala ana duaauka alladi kunta tadcu biha fi dunia wa aw bihi mu ne bu ñu paree ci misaan bi ba ne bàyyi leen kii ñu war a dem sirat ndax yàlla dafa dogal àjjana mënoo fa dugga te rombo sirat mais gis nga euh, sayfi bi mu daan jàng mooy soppaliku doon malaaka jëmmi lumière ne ko war ma effectivement xam nga àdduna këru jëf la kon yow jëf bi yaa koy jëf ak coona presque kon jëf bi moo lay war waaw ñaar yu warante nag buñ ko dippee ëllëg luy xew buñ ko dippee hmm? beneen bi mooy war bi ci des ñaar ñuy xeex kenn ki euh, euh, war moroom mi di ko dóor waa ji ci suuf bu góor góorloo ba dippi waa ji waraat ko moom it du def lu raw lool gis nga jaamu yàlla yi ngay def nii dala war ndax léeg nga toog di attaaya ñu nodd nga ne o oh, ndax jëf jiw euh, taju euh, aju na sa kaw mu doon poids boo xam ne ni daf lay war tant que julli woo doo noppul tant que jàngoo sayf yu doo noppalu tant que wasifa doo noppul kon yow jëf yu baax yi fii ci àdduna ñoo la war ëllëg nag ñooy nekk ay faveur pour yow yow yaa leen di war da ngay mujj sax rus ndax di nga xam ne ñoom teguñu la woon coona yow bi nga am ci ñoom ndax yab lépp le nag vraiment fukki dërëm ñu fay la quatre milliards cinq cent de dollars euh, 4 milliards euh, 4 euh, mille milliards de dollars dëgg-dëgg boo fàttali bor ba doo bëgg ku ko tuddati hmm? doo doo bëgg ko tuddati ñun ñun yi ñuy def ci ay jëfin donte ay poids la ci ñun xaw naa metti tuuti mais ëllëg buñ la fayee nga xam ne sonnee woon ni sonnee woo woon nii moo tax boo yeggee sirat jëf ji ci boppam mooy doon benn jet privé wala benn avion bu rafet nga dugg ci ne fef dugg biir àjjana kooku ku koy téye nga ne ko waaw yow jet privé bi yow luxe nga de yow yaay kan mu ne ah xàmmeewoo ma man maay say fiw bi nga doon jàng ma ne mu ne ay kon yow laa gisoon sama bàmmeel ay ah, yow yaay soppeeku nii mu ne maa fële fii loo ci man beneen bi Cheikh Al Hadj Omar Fouti mooy wax te kat waxam bu ko xep xutbul aktaab la boo xam ne nii li mu lay wax teg na ci bët ba pare Cheikh Omar ne doonul académicien buy wax de yi mu lay wax yëpp teg na ci bët ko da Adama Aysat wa E, yujaahu e, e, azzairin ida ataw li ziyaarati bi iqraami qaari i hada dua bokk na ci buñ duggee àjjana yonent bi sallallahu alayhi dafay am audience spéciale bu muy accordel ñi daan jàng xisbu sayfiyu bii ndax leeru yàlla kese la te moom mooy jëmmu leeru yàlla wa mina anna man daawama ala qiraati xalladahu llahu fil janna bi barakati nit moom mën naa dem fu ne ba mu des kuy dem maanaam kuy jàng sayf yu dem feneen fu dul àjjana loolu nag mën naa xew xam nga foofu ay scandale rek ak ay surprise rek a fay ne waaye surprise bi waa ji daal jàng na sayf yu ba dee dem na aj fu dul àjjana loolu moom mënu la ne ndax lumière bi moo tax wa minha annahu la yakunu li ahadin wala ala daraja akthar min qaari hadha al nee na yowmal qiyaamati itam àjjana ku ne xam na ne dañ ko cari catégoriser mais catégorie yi li muy bari bari bari vraiment nit ku mën a kawe ba waa waa ñiy jàng say fi mënul am foofu xanaa kon dégg nga ne loo baax baax baax sëñ Babacar si radiallahu anhu mu baax mi da daan wax ne taalibe tijaan bu dul jàng say fiw moo golo gu mënul yéeg ñooyam golo nag tudda golo golo ku ko tudda rek yaa ngi ciy teg mën a yéeg doo ko tuddee ba pare nag mënoo yëg waaye génnal ci golo gi nag demal dooni mbaam mais golo wax dëgg yàlla yëg lañ ko xamee dafa la bëgg a wax ne loo doon doon tijaan te doo jàngagum say fiyu sax tijaan am na loo manqué parce que fii dafa wax ne ak lu mën a xew àjjana li muy bari bari catégorie yàlla moo dul nangu ci waxin ku bëgg a yilif maanaam ku bëgg a gën a kawe ñiy jàng say fiyu ma ne waaw ñaari tiijaan sax buñ doon tiijaan kii di jàng sayf yi kii ci des du ko jàng ëllëg yama taam duñ tolloo loolu moom war nga ko mën a nangu waaw kon nag massa tabaarakallahu koo xam ne faful doon tiijaan faful jàng say yi kooku kenn waxul ay waxam beneen bi moo di inna allaha taala yahabu li kulli xarfin min hada dua darajatun fil janna bi barakat yi xisbu sayf yi gis nga kaar ni mu guddee boo gisee ñu bari sawaruñ ci itam temps bi nga ciy def dafa bari xam na ku ne ma man daal li ma koy jànge mooy jumaa ju may dem daal damay teel a dem juma euh, toog xanaa bala ñoo julli affaire bi dina pare kooku noonu rek la koy jànge ndax bi muy jël ni mu bare te comme xam na ne dafa war a dem juma te dem juma dem rek la day teel a dem toog di ko jàng ba bala ñoo julli mu kii sëy fiyu nag noonu mu guddee nee nañ yawmal qiyaamati ndeke xikma la mooy benn araf bu ne ndekete étage lay doon araf bi xam nga ku yegg foofu di nga ne yu gën waroon na gën a gudde nii kon <laughs> benn lettre bu nekk ëllëg benn niveau lay doon ci sa étage bañ lay dëkkal nga xam ne kon dina sori torop yàlla buñ ci teg sax catégorie wu maanaam chiffre li ko jot a jàng sa giir dund ñu ne bu mujj bi allahuma hada duaa min kal ijaaba wa hada al juhdu minna alayka tuka wa hawla wa quwwata illa billah walhamdulillah awalan wa axiran wa zahiran salam tasliman seen uh, uh, uh, tasliman ila yawmi diin xam nga yawmi diin nuun boobu foofu la yem léegi buñ ko jëlewaat ak allahuma allahuma inni asaluka ba mu bu commencé boobu nuun bi ak alif bële ñu konte waat beneen barta ba ba yi ñu yeggaat yawmi diin jëlaat beneen bi defaat lu tollook li nga ko jàng sa giiru dund kooku kan mooy xam sa catégorie nu mu toll kenn xamul lu mu toll bokk na ci avant dernier bi nag wala muy dernier ngëneel bi sëriñ bi bëggoon a tudd moo di wa amma man qara'ahu muctaqidan barakatahu xadara xadaratuhu sabcuuna alf malakin fa ida qaala allahuma anta allahu almaliku alxaqu almubin ila qawlihi la ilaha illa anta sajadat almalaik kulluhum wa saaluhu an yaqdi allahu xaajata mu ne itam benn sayf yu boo jàng boo ne allahuma anta allahu almaliku alxaqu rek boo commencé noonu la commencé soixante-dix mille malaayika dañuy teew ci yow benn malaaka bu ne boo tolloo ba ci la ilaha illa anta nag amantallahu alladi laa la illa boo ne laa ilaha illa anta rek malaaka yi day mel ni dañuy daanu leer ñoom ñëpp dañuy sujjut ndax laa ilaha illa am na lu mu firi kii wax mu ngi janook yàlla laa illa anta malaaka yi dañuy daanu leer sujjut bu ñu sujjootee lenn la ñaan yàlla ne yàlla ñu ngi lay waatal ne duñu siggi ci sujjoot bi lu dul nga baal waa ji jéggal waa ji kon buñ nee la boo jàngee ñaan gi benn yoon yàlla baal na sa bàkkaar yépp kon am na la pourquoi yàlla ci waxin mel ni ku leen tontu ne leen yéen a dooj waa ji bu ma ko narul woon a baal du ko xiir mu jàng say fiyu bii euh, mu ne ma zakarnaahu fi waqad jamaana baad xawaasi wa karamat fi taalifin mustaqillin mufidin fanzurhu fa inna fihi ma yakfika insha allahu taala mu ne nag lii ma la jot jàngal wax na dëgg doy na nag ci euh, karaama yi ndax soixante mille karaama la waaye lii ma fi jot a def rek euh, expliqué la xame nga ci grandeur u Seyfiyu rawatina yow Tiijaan bi ci am digal euh, waa soixante soixante mille yi bu fekk gis nga fi mu la jëlee may na la teranga yëpp waaye terangay àllaaxira yi la la wax teranga àllaaxira nag dafay am mu ngi yem ci dugga àjjana ba installé moo tax ñoom ku ci wax ngëneel ba dugal la àjjana pare na ci wax ci yeneen ya ca des mën nañ la fa yoo xam ne doo ko mën a comprendre mais yi mu fi tudd yëpp yëpp gis nga li mu li ni mu ni mu néewee fukk fukk ak juróom lay toll waaw léegi nag boo ko génnee ci soixante mille te am na ci teranga yooyu àdduna la ak yoo xam ne barzax la yoo xam ne ëllëg la yowmal qiyaama ak yoo xam ne biir àjjana la kenn xamul lu mu toll te benn boo jàng am nga yooyu yëpp bokkul ak douze mille xas yi yële ma amoon lii laa wax ku ñu dox sa digganteeg di ko jàng ngir naa lan sa yaram day tàng doo am dara xam nga wax dëgg yàlla xañ na la lu rëy du dëgg li ci doon yokk nag léegi mooy say fiw mi li muy for for for yow mi ci yow mi ko jàng li nga ci am am digal li muy baax baax baax ak li ci borom jawaaru xam sa di wax wax wax avec tout ça boo delloo ci gannaaw di nga yëg ne say fiw zikr la benn zikr la xam nga sayfi yu mboolem ruux bu yàlla bind ak yëg nga ko ak yëgoo ko yaa ngi jàng xisbu sayfi ruux yëpp yow mi jàng nag benn saat fatiha dañuy comptabiliser mboolem ruux yi li jàng sayfi yu kenn xamul ñaata mille milliards la moom lañuy ñuy multiplier par six mille fois fay la ko ci sa benn salaat fatiha problème am na dafa bëgg a wax ne li ba yàlla bindee ku xam sayfi yu ku xam Sayfiyu di jàng Sayfiyu ba fii nga toog laa wax ñu xam ko ba pare di ko jàng moo xam malaaka la moo xam jinne moo xam nit moo xam ku mën a doon laa wax bañ ba loolu amee création boobu ba fii nga toog nii ci bisu tey bi nga may dégg mane lu fi ma sa passé laa wax ci lim ci Sayfiyu boo ko jëlee multiplier ko par six mille fois moo tollook nga ne allahuma salli ala sayidina muhammadin fatih li mawrik والخاتم ما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم loolu lay tollol